salaamaaleykum mbokk yi xaritu internet yi ñu ngi leen di euh, nuyu bu baax a baax dellusiwaat nañu comme ni ñu koy defee ci sunu chronique bi nga xamante ne ñu ngi koy def euh, euh, les week-ends di leen jox li nga xamante ne mooy information yi ngeen di gis en général ci réseaux sociaux yi ñu gën ci indi ay leeral alors chronique bi ñu njëkkee mooy deuxième femme Pape Diouf dañuy xëy gis ne Pape Diouf dafa takk deuxième femme alors en réalité. Euh, ñu bëri ñu ngi posé wu question bi naan ma ndax clip la ndax lan la ma ne leen effectivement ma leen effectivement mariage la mais du mariage yu ki nga xamante ne moo di Pape jouf mais son petit frère Khadim Diouf son bras droit bi nga xamante ne euh, ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay euh, moo doon jël soxna en réalité du Pape Diouf moo doon takk deuxième femme mais son petit frère Khadim Diouf moo doon takk jabar mais bon Euh, on est dans un monde boo xamante ne c'est normal parfois les gens en profitent pour euh, faire le buzz ah nit ñi aussi bu ñu gisee dara ah il faut que aussi parfois ciy wax mais en réalité euh, Pape takkul deuxième femme mais son petit frère Khadim Diouf moo doon takk jabar tey fi nga xamante ne moo di foofu ca kër ga alors di leen gërëm bu baax a baax comme ni ma ko waxee rek topp la ñu si sunu People TV ah ñu ànd ak yéen di leen jox li nga xamante ne mooy information yi ngeen di soxla li ngeen di gis ci réseaux sociaux yi te leeru leen ñun ñoo leen ci mën a dimbali comme ça di leen ci jàppale bu baax a baax ci sunu People TV merci beaucoup à tous jaa ngeen